ci li xew ci réew mi ak déclaration wu président sortant bi nga xam ne moom mooy Macky sal jël ab dogal woo xam ne waxtaane ko te du yoon jalgati cartum réew mi niilal élection yi aju ko waaye da koo niilal ñu dooree nag ci lu jëm ci wàllum li sabab lii mooy commission d'enquête parlementaire bi ñu wax ne moom la ñu ubbi ca pencu ndawi réew ma di assemblée nationale te nag daf ci am yoo xam ne farata la laal ay père ak ay mère de famille yoo xam ni ay député wu yeewi askan wi bind nañ ko bindaat ko wax ko waxaat ko te teewul benn yoon assemblée nationale ak njiitam daal di cay jublu ay commission d'enquête parlementaire yu bari yoo xamante ni nii déposé nañ ko waaye defuñ ko mode fast track te loolu day ay bakkanu doomu aadama ci boppam moom moo nekk ca ñoom bokk na ca nag ñii nga xam ne dañuy liggéeye ci feeraa bi toog nañu lu tollook juróom-ñett ci weer ay père ak ay meer de famille kenn fayu leen ñu ne leen ñëw leen ñu def ci commission d'enquête parlementaire ñu bañ lu jëm ci wàllum waa ASP ñii nga xam ne dañoo yor wàllum kaaraangeewu réew mi bokk ca di ànd ak gendarmerie ak police waaye faale leen ba léegi ni le bokk na ca it yenn ci ay njuuj njaaj yoo xam ni kon gis nañ ko nag ci lu jëm ci wàllu wér yaram ak lu ni mel waaye teewul ba léegi ni le ñu jublu ca waaye lu jëm nag ci wàllum conseil constitutionnel ak élection bii nga xam ne ñoom Sénégal yépp ak waa bitim réew xam nañ ne dañu ko ñàkk ñu gaaw indi ab commission parlementaire commission d'enquête parlementaire loolu nag tax na ba waa groupe Yewwi Askan Wi balaa ñoo door ak di wax dara d'accorduñu ci dàq gi d'accorduñu ci aj bi di report ni annulation wu élection présidentielle bii nga xam ne le 25 février 2024 bii la war a am bu loolu weesoo nag comme ni ko président waxee daf jëm ay conditions yoo xam ni dañoo war a wàccoo ak moom Macky Sall respecté wu ci benn ba ca lu jëm nag ci wàllum ay incident ci lu jëm ci wàllum koppar gi nga xam ni kon war na caa dem loolu it wàccoowul ak moom lu jëm it ci wàllum lii nga xam ni moom la def yeewee askan wi nag def nañu kon ab kalaame ca conseil constitutionnel di wàllum recours ngir commission bii nga xam ni kon taxawal nañ ko waaye bu loolu weesoo tamit ñu ngi xaar mu daal di dëggal promulguer loi ba bu ko defee loolu it danañu ko songiwaat groupe parlementaire Yewwi Askan Wi nga xam ne député yu Pastef PUR Habib Sy PM ak ànd bu ay Aïda Mbodj PRP Déthié Fall ak man mii taxaw am comme candidat président El Hadj Malick Gakou ñëpp dañu ne ànduñ ci tey te ànduñ ci tamit ëllëg te loolu it nañu ko xeex xeex boobu nag dañ ne des députés du peuple nekkatul ay député wu diw wala diw mais dañ ne des députés du peuple nekkatul sax Yewwi Askan Wi kese képp kuy député nekk ca penc ndawi réew mi askan wi kon moom moo la fa indi kon nag askan woowu nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo leen fa indi xeex bi moom waaye Yewwi Askan Wi danañ ko xeex waaye ñi ngi wootam képp koo xam ne sénégalais nga nekk ci biir réew mi ak ca bitim réew suba ci altine ji woote nañu ngir jàllale seenu loi ngir président Macky Sall mën a am fu mu sukkandiku ngir nag daal di def li nga xam ne yëfu maa tey la waaye itam yëfu tojaange parce que ba fii ñuy wax bu ñu neexee ñu tuddee ko noonu ne ab décret verbal la rek la yëkkati wax waaye gisaguñ ba léegi nii la foo xam ne dafa signé wala léegi li ñoom nag suba ca assemblée nationale lañ bëgg a def kon seen jaaruwaay ngir nag def giraawaali gu ni mel ba tax na ñu ngi woo képp kuy sénégalais fépp foo mën a ne nga ñëw ca pencu ndawi réew ma lii amoon na fi 2011 ak le quart bloquant soo amee 25 pour cent gagné nga ay élection présidentielle député ya nguur ga ñoo nekkoon majorité am majorité ci assemblée nationale mais lan moo tax ba Abdoulaye Wade ak waa këram dellu woon ginnaaw parce que peuple bii le peuple ñoom ñoo ñëw taxaw xeex mu jaral leen lu ne ba loolu noonu mu mujjul woon a am konoon ba tey heure bii ñoom gañewaat nañ ba tax na nag keroog peuple bi moom moo am ndam peuple boobu nag la ñuy woo député yooyu askan wi nag yaakaar naa ni tuumal nañ leen lu ne parce que gis nañ seen taxawaay ci biir pencu ndawi réew mi tuumaal nañ leen ay xeexkat tuumaal leen ay yëfu xale tuumaal leen lu ne waaye nag mbir ma moom moo koy laaj moo tax ñoom ñuy taxawee noone te bu suba ak jàmm tamit noonu lañ fas yéenee euh, taxawee waat ba léegi ni le kon nag troisième mandat bi nga xam ne Macky Sall dane woon defu ko mi ngi nii di ko def à partir du vingt cinq février fan bu mu ci tegati jàppale ne kon troisième mandat bu illégal la il a il il avait renoncé à sa troisième candidature waaye dañ ne woon mësul renoncer au pouvoir te lii mu def tey nag def ko dëggal groupe Yewwi Askan Wi parlementaire ñu ngi woo syndicalistes yi di woo sportif yi di woo l'administration di woo tamit commerçant yi religieux yi kilifa aada kilifa diine yi bu loolu weesoo tamit yeewee askan wi nag mi ngi bàyyiloo xel sénégalais yi ñoo xam ne ñu jarab ay xel lañu ñaata doomu aadama ñoom ñoo nekk ci kaso yi ay junni junni yoo xam ne élection yi ajaat nañ ko danañ fa toogaat ba keroog nag ñu naan nguur gi changé bu loolu weesoo ñaata doomu aadama la ñu gàddaayloo ay père ak ay mère de famille ñoo xam ne dañ doon liggéey ñooñu tam daw nañu làqu ji ca bitim réew te dara waralu ko nag lu dul nguur gii ak dumawaate tëjaate def loo xamante ne mbirum jaay doole la ñooñu rek war naa tax nag ba képp koo xam ne yaa ngi xalaat report ñu xeex ak yow bu ko defee nag loolu ñu mën ko fee jëlee bu loolu weesoo tamit lu jëm nag ci wàllu mission assemblée léeg-léeg dañuy jaawale lu bëree bëree bëri parce que bu ñu ne député yi nekk ca penc ndaw réew ma rek ñu daal di tuumaal ñëpp dafa am foo xam ne commission la am na foo xam ne bureau la am na foo xam ne conférence des présidents conférence des présidents nag moom calendrier bi daal lay toog daal di fixé ne léeg-léeg li commission yi nag ñu daal di ko fay waxtaanee plénière tamit ñu daal di ñëw nag ngir nit ñi voté foofu noonu lay jàlle ñun nag fépp foo xamante ni nii am nañ fa nit ba ci conférence des présidents bii passé nii nii nii nii nii nii ñañ fa amoon na kës néew dañoo voté contre lu jëm tamit ci wàllum plénière bi ñëpp ñëwee ñun ñëpp à l'unanimité dañoo voté contre lu jëm nag ci wàllum euh, euh, euh, conférence des présidents loolu moom du dara lu dul bi kañ lay ne kañ lañ koy organiser et cetera daje nañu tey bu loolu weesoo tamit daje na dinañ dajewaat tey jii ci quinze heures suba nag dinañu def plénière ñu ngi woon ak képp koo xam ni sénégalais nga nga ñëw suba ca penc ndawi réew ma di assemblée nationale. campagne bi nag comme ni ko candidat yi waxee ni ki démb tey jii incha allahu rabbi lay daal di tàmbali képp koo xam ni am nga candidat amoo candidat bëgg nga changement bëgg nga Macky Sall juge fi bu ko defee nag euh, tey jii lay door Macky nag moom moo ne woon le 2 avril dina assurer lépp loo xam ni moom moo nekk ay dossier ba le 2. mu daal di jël nguur gi joxe ko yaakaar naa ne nag moom bis ni ki démb sax la ko fab joxe dafa anticiper joxeem lii coup d'état militaire kenn ñaanu ko yàlla ci Sénégal ñun de waaye yooyu askan wi bokkuñ ci ñi nga xam ne ñooy ñaax soldats yi pour ñu ñëw jël nguur gi de waaye nag ak ñu ko bañ-bañ tamit d'accorduñ ci coup d'état constitutionnel te Macky Sall nag wàllum constitution bii la jàpp ñu ne ko garder ko mu caxa-caxate ko yàqate ko te loolu nag yaakaar nañ ne sénégalais yëpp mujj nañ ci teg bët suba nag kon ñu ngi woo Sénégalais yépp ñu ñëw ca pencu ndaw réew ma assemblée nationale bu ko defee loi bii bañ a mën a jàll parce que nag pour mu bañ a jàll nag ci peuple bi dong la dépendre parce que ñun lépp luñ fa am te fare ci côté peuple bi yónni ñu dinañu voter contre li des nag askan wi ci boppam ñoom ñoo koy mottali gungee ñu ñu am ci ndam wasalaam SeneInfo International